maa ngi leen di nuyu am na ñu fi njëkk jiitu wax nañ ñu jox leen dara doxut ñi fi ne yi tamit wax nañ ñu jox leen waaye dara doxut waaye nag ñi fi war a ñëwaat ñoo ñooñu lañ war a seetantal te ñun jeunes yi ñun ndaw yu Medina Baye Niass yi nga xam ne fii ñu fi toog yëpp ay ndaw yu Medina Baye Niass waa kër Mame El Hadj Abdoulaye lañ moom ñii waa kër Mame El Hadj Babacar ñii sëti Mawlana Cheikh Ibrahim lañ mboolem ñu Maam Alaaji Babacar jur njaboote rek seen sët a ngi toog toog fii si jotaay bi ak ñi nga xam ne seen maam yi ak Maam baabakar Babacar Maam Alaaji Abdoulaye Mawlana Cheikh Ibrahim ñoo àndoon di xidma baay ba jamono yàlla tey gi ànd boobu seen maam yi àndoon ak seen Mawlana Cheikh Ibrahim suñu bàyyi ñoom noonu lañ ñëwee àndaat ak ñun mu nekk ànd bu rafet Kaolack mos nag mag Kaolack mos na jigéen waaye nag Kaolack lan la mosagul mooy jeune te bàyyi wax na ne wa barakatul umri fil xasri sababi barkey dund dund gu validé mu ci ndaw ñi liñ gëm ñun troisième force mooy li ne fi nga xam ne Kaolack dafa war a bokk ci dëkk yi nga xam ne dafa war a tedd war a rafet ndax jëmmi taar moo fi ne nit bu ñuy dimbale ak kum mën a doon suñ ko dimbalee lu mu am rek fi mu dëkk la koy yóbbu te ñun jeunesse Médina yi li nga xam ne moo ñu war mooy ñu jël ki nga xam ne doyloo na Baye radiyallahu anhu doyloo na Cheikhu Tidiane doyloo na yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jiital ko ci yëf yi te loolu kenn jiituwul ci Babacar Lo Ndiaye ku bëgg Baye la ndax nit ñaa ngi wax Kaolack waaye bu def nag Kaolack ne na Baye comme ni ko secrétaire waxee léegi man lu ma am Medina Baye laa ko wax te képp ku koy suivre rek def naa ne yaa ngi wax lépp lu mu wax rek nee na Medina Baye la te bokkut ci ñi nga xam ne dañuy soxla di ootewu ne man taalibe Baye la moom aarif billaahi la taalibe al aarif billaahi ayatillahi Cheikh Alhaaji Ousseynou Aboubacar Abdoulaye Niass la taalibe buntu Cheikh Ousseynou xalifaay Cheikh Ousseynou di xadimu salaam taalibem la kon loolu amul lenn luñ ciy nantantal li may wax ci turi mouvement bi yëpp nga xam ne ñoo bokk pas-pas ngir suñu candidat ngir ñun ñoo war a imposer ne ñoo war a tànn kiñ ñu war a jox mairie Kaolack te kiñ ñu tànn mooy kan mooy Babacar Lo Ndiaye. muy jotaay boo xam ne ay jotaayu ndaw la yoo xam ne ñu ngi ko tuddee troisième force bi nga xam ne ñu ngi war a ànd ak ki nga xam ne mooy suñu leader di Babacar loo Ndiaye. nga xam ne dafa ñëw doon koo xam ne dafa ñoo wan ne nit la koo xam ne ku bëgg liggéey la ku bëgg place la ci politique waaye ku bëgg ñu ràññee mbiri Medinatu Cheikh Ibrahim la te ñun dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne dara ñoruñu lu dul Medina Baye bëgguñ dara lu dul avancement Medina Baye ci suñ njort gu rafet ñu jàpp ne suñ ko doolelee ànd ak moom moom baaba kër loo Ndiaye li nga xam ne mooy suñ bëgg-bëgg yëpp danañ ko jot li nga xam ne mooy suñ càkkutéef ci liggéey boobu ñu bëgg ànd ak moom yëpp danañ ko jot. di wax ci troisième force troisième force mooy lan troisième force mooy Kaolack ñam na mag dara changé wut. ñam na jigéen dara changé wut kon il faut ñu ñam gone waaye ci gone gi nga xam ne am na culture générale nag bàyyi ba muy wax ndaw yi am culture da danaan wax ndaw lu jàng. si biir loolu dañ leen présenté Babacar Lo Ndiaye monsieur Babacar Lo Ndiaye président de la convergence des forces républicaines CFR ingénieur planificateur produit de l'école nationale d'économie appliquée NEA au département planification économique et gestion des organisations PEGO conseil du président de la république Macky Sall monsieur Macky kon xam nañ ne kii nekkul nit ku ndaw buñ xoolee jaar jaaram si jàng sori na lool parce que mi ngi génnee tamit G gestionnaire ñoo ngi xam ne dañuy économiser duñ yàq kon ki am nañ yaakaar ne bu ko joxee suñ suñ mairie bi dana dox tamit lu ma gën a jaaxal si monsieur Babacar Lo Ndiaye mooy dafa la pare bu toogee dama lu ma am mbir na bàyyi laa koy yóbbu loolu est-ce que nañoo gis ko ko wax soxla mairie bi na lu ma am mbir na bàyyi laa yóbbu te bàyyi wax na ci àq mbëggeel mu ne laa yunaalu maa indanaa illaa bi siddiqi wal mahabbati lu nekk ci man Baye Niass kenn du ko am lu may ci dëggu ak ci mbëggeel deug la bañ xamanté yàggut mais gis na loolu ci mom gis na deug gog ak mbeugel gog ci Moussé Babacar Lo ndjay ci ndigalu monsieur le maire Babacar Lo ndjay ci lañ yëkëti kàddu. ité ji ngeen def ni ni mom la seen mam ne na ngeen kawel seen ité yi lu nekk ci aras rek su ngeen defee ité da ngeen ci jotté légui nak Babacar mi ité joju mom la yëg comme que mom la serignam bëggoon kon dana sol dal dana kawel itteem pour yëkëti kawlax yóbbu ko fam ko bëgg Ah, mu nekk fi nag ak ay ñoo xam ne ñoom ñoo wax ne ñoo soxla dëkk bi comme ni ngeen ko waxee ay mag jaar nañ fi jëriñun dara ñu yëkkati ko jox ko jigéen ñu ñëpp naan léegi kay dëkk bi neex na ndax te jigéen soo ko xasee ba jox réew jigéen dafa bëgg nangam ndekete jigéen bi laal basang la fi nekkee. te ni ngeen ko gisee moom Babacar mu mel nii fii ci kaw lax ci Medina Baye soo demee Ndorong noonu la fa mel wax naa ne léegi na ay représentants fi yoo xam ne ay directeur d'école lañ boo demee Ndorong tey danga na déree kii Ndorong la dëkk. so deme ndar gu ndaw nga waxatuñ ko so deme kenen nga nonu parce que fep fofu dem rek gis nga taxaway yu reey yi nga xamne mom la fay taxaw waye gis nga mom timi engagement yi am pour Kaolack kon nak suñ deme ba nga xamne ne mawla Cheikh Ibrahim Niass yi nga xamne mom fofu la bokk ñom ñoo sol ne ko ñun yow lañ paré pour and ak yow yëkëti Kaolack teg ci sa loxo kon xolam sedd na. ne su babakar Lo ndjay barki dem bi fi makissali di ñew meeting bi nga xamne mom mo amone Euh, euh, bu mu doon defee stade président moom kenn ngeen dégg mu gërëm ko ci li nga xam ne ñoo nekk ci ay leader fii ci dëkk bi yëpp maa ngi gërëm Babacar Lo Ndiaye kontaan naa gis naa sa mobilisation kon kooku bàyyi na ko xel am benn leader bu mag ci politique bi mu ko gisee dafa tiit ba ne waaw waaw kii fa la jëlee mbooloo mi kooku nag tey mbooloo moomu ñoo xam ne ñoo ànd ak moom nañ fexe ba nekk ñoo xam ne duñ nekk wax ci làmmiñ kese lay du nañ ko wax mais nañ ko jëf président nee na Mounir ci sa njiit naa wax ne gërëm na leen ñoom ñëpp sant na leen mu ngi di ñaanal yàlla yàlla yàlla dafa leen tawfiq ak